te bul son la yow baaxal te bul yabe yow xaaral te bul xaddi yow jiitul te bul segere santal te bul damu yow sëggal ñu war sa kaw nooyal ba faf safu dër bul jàgg niw fafare warlul te bul warle lëf nangul te bul tege lëf yombal te bul jafe it nekkal di ku yiy defare bul sikki nit bu ko bañ bul yàq ab deramit jàppal sa xol jàpp say cër bul waroo ko ware baaxul balaa am jàmm dox sa diggëg say bokk ak say